salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar ngir gën a jege ay clientam digital store yokk na réseau ubbi showroom bu bees tàq ca Colobane immeuble CMS janoo ak caserne Samba Diéry Diallo digital store di leen proposer gamme bu yaatu ci wàllu électroménager ay téléphone qualité supérieure ay matériel informatique de dernière génération lépp lu mujjee génn ci informatique fekk leen ko digital store digital di représentant exclusif moom dong moo fi teewal marque bi di Crosscall ak ay téléphone portable portable yu mucc ayib dëgër lool ba noppi étanche ñu garanti ko ñett ba juróomi at benn defarkatu téléphone ñemewul garanti téléphone juróomi at digital store mooy yëgal ay clientam ne am na service après vente bu mucc ayib nekk fii ci Colobane nga xam ne dañuy liggéey 24 heures sur 24 am équipe boo xam ne dafay jóge ci place bi dem ba ci seen kër mën nañoo liggéey 24 heures sur 24 fu ngeen ñu soxla ci Sénégal suñu service après vente dafay def tamit ay contrat d'entretien ay contrat de maintenance it leen gunge ci bépp réparation ak entretien yu seen appareil yi ngeen jënd ba noppi seen partenaire de référence Digital Store mën nga jokkoo ak ñoom ci 33 842 61 38 33 842 61 38 wala nga dugg ci suñu site www.digitalstore.sn siyaare bu baax a baax di dalal monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam ak euh, monsieur le ministre Serigne Issakha Diop Mansour mi nga xam ne mooy onage ak seen personnel bi ñu ànd ak yépp kenn ku ci nekk ànd bi ñuy ñëw Serigne Mbaye Thiam bi ñëw ànd na ak mbooleem personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci ministère bi ak département yi Ah, ak chef service ak technicien yi sëriñ bi biñ ñëwee it ñu ngi ko gàttandu neuf heures quarante cinq fii ci Ila Touba bi ànd ak moom mu wër mboolem barab yi nga xam ne ñaari ndox yi am na fa muy ndoxam naan mi ak ndoxam taw mi ñu ngi njëkk a dem Fatul Fata ci forage bi nga xam ne ñu ngi koy gas foofu mi sori na lool yaakaar naa ne lee ñu capté xam naa bu ñëwee ci moom ci boppam dana ci ñëw bi ñu fa jógee ñu ñëw ci buntu commune bi ci barab yooyu nga xam ne dañ ko dañ ca solutionné woon teg fa ab machine ñëw nañ ndaamaatu ci forage boobu nga xam ne dafa paan tey jii waaye yàlla dogal na nag ñu ñëwee di ko solutionné matériel bi amoon na fi jox naa matériel bi offert ba ña di ko dépanne bi ñu fa jógee mu ñëw ci ndaamaatu encore ci corniche bi foofu chinois yi doon raccordé nga xam ne mboolem ndox mi dañ jóge Kër Ñang ak Ngiraaneen foofu lay stationné te nekk ci corniche bi pour chinois yi raccordé ko mu mën a dugg ci réseau bi mag bi nga xam ne moom lañ doon defal bi mu fa jógee dem na ngelamu ñoom it solutionné nañ ko ndax ngelamu da doon pompe di yóbbu Kër Ñang waaye comme Kër Ñang day fees léeg-léeg ak di déborder maanaam mu contourné li daan jóge Ndaamaatu ak liy jóge Ngelamu lépp di def di pompe direct kër kàbbu ndax kër kàbbu moom yaakaar nañ ne du fees wala du du gaaw a fees loolu aussi mu def ko bi mu fa jógee nag lañ door a dem Baxdaad te forage naa ne fee ñetti fan ñeent daan la wax fi mu toll jóge fa dem Aliye bi mu fa jógee nag mu door ñëw fii ne mi ngi ñëw rendre la compte ndax fi la a xëy njëkk a jaar jaar sëñ bi waaye mu ne woon na def tournée bi ba xam li xew moom ak directeur am bi ak personnel am bi ànd nañ ko moom bu noppee bu lim teg ba tam ñëwee dana la ko wax te lu mu la ci wax dana wér loolu moo tax sëriñ bi daal loolu lañ yendoon ñu di ko sant di ko gërëm ci am yitte gi mu am nag ak mbooleem ñoom ñëpp ci liggéey bi ak ni mu leen ñoree ndax moom ñëwoon na toujours mi ngi ñëw Mamour Diallo mi def naa ne ñaari weer yi cinq fois ñëw na ko fi keroog dimanche rek fi lay yenn yoo xam ne dafa départ ñëw xool wàññi ko ñibbi tey jii mu ñëwaat loolu daal lañ la doon seereel ci liggéey bi di jox kàddu gi nag monsieur le ministre mu wax li nga xam ne moo moom la gis ak moom fu la projet bi toll ci fii ak màggal ñu ngi ñëw fii tey jii Touba ci tànk ziyaara am ku ziyaara Sëriñ Muntaxa sàkku ñaan tamit am jël ay tegtalam ay ndigalam ci liggéey bi nga xam ne moom la ñëwoon tey jii pour xayma ko saytu ko liggéey boobu aaju ci mbirum ndox ndox mi ñuy naan ak ndox taw ndox mi ñuy naan xam nañ ne fii am na fi ay forage yu ñu fu nekk nii ci fanweeri forage ak juróom-ñaar suñu jubloo ci màggal gi forage yooyu yëpp ak château d'eau ñu àndal ak màndu ndox yu ñu àndal ak réseau yu koy indi ci kër gi OFOR gouvernement bi daf ko ci jox ay jumtukaay ak budget pour lépp loo xam ne li gis na ko ci paan mu taataan ko réparé ko depuis lu ëpp weer effort mi loolu tamit ci yokk ndox bi nga xam ne mooy ball ci muy ñetti forage yuñ ci waroon a teg nga xam ne yi seeti nañ leen tey benn ci ñoom di Bagdad boo xam ne bii entreprise bi koy liggéey nee na fekk ay fan le 30 incha allah yaakaar na ne dana pare yeneen forage yi biñ koy liggéey machine la ñu am ci jafe-jafe ofor am ci jafe-jafe mu am lu surux dugg ci biir teen bi moom la ñuy essayer génne fi mu nekk nii bu allié bi entreprise bi nee na tey su fekkee ne li surux génn nañ ko fekk ñetti fan ñetti fan liggéey bi dana pare waaye xam nañ ne dëkk koo xam ne bii li nga xam ne moo fay teew ci li mu doom aadama su màggal jotee dana ful ñett wala ñeent wala ba juróom ci doomu aadama yi nga xam ne ñoo fay yeewoo xel mën naa jàpp ne li ñuy soxla ci limu liitaru ndox dana takku looloo tax ñu jël yeneen matukaay benn bi mooy jël ay camion citerne yoo xam ne yi danañ ci duy ndox ci forage yi mu ngi jël euh, xabaar bi di ko tasaare ci rajo yi fi nekk mooy képp koo xam ne kii am nga mbànd sa kër nga yëgal ko Ofor ñu duy mbànd mi lu jiitu màggal gi di ñëw nga xam ne dana wàññi jafe-jafe ndox yi màggal képp koo xam ne kii am nga mbànd sa kër mën ngaa jokkoo ak waa OFOR ñu jël ci kat dañuy dugg ci màggal gi ñu ñëw duyal la sa mbànn am na tamit ay bâche à yoo xam ne yi mooy ay citerne yu ndaw yi ñu yóbbu ci yenn kër ah loolu ci mbirum ndox mi li nga xam ne def nañ ko ci te maire bi Abdoul Ahad Ka dellu na ci beneen bi ñetti at ci ginnaaw sëriñ bi sëriñ Bassirou ci nga waxoon ne war nañoo waajal nawet ndaxte danañu dem màggal gi ci biir nawet lay nekk mën nañoo seede tamit ne depuis ñetti at président de la république assainissement Touba def ko ku yi bi ñu njëkk a def mooy kër ñang ñu yokk tiwo yi nga xam ne moo koy jógee fële daaru rahman ak foofu ba pare yokk xam ne moom lañ fay màgg ci ndox loolu ñaari at ci ginnaaw lañ ko liggéey bi ñu ko defee ñu gis ne Touba dafa yaatu li mu doomu aadama yi fi nekk tamit dafa takku war nañoo def programme bu rëy assainissement programme boobu nag pour def ko ci benn at dana diis torop moo tax ñu commencé ko daaw benn programme bu ñaar fukki milliards ak ñett def ko muy ay kanu kanu yoo xam ne def nañ ko fi ku ci teg sa bët gis na ne kanu yooyu oto sax mën naa dugg ci biir di daw ñu ko defaree premier ministre ñëwoon na seet si ko saytu liggéey ñu gis ne bi nga xamee ne Kër Ñang yokk nañ ko muy dem Daaru Rahman ak of di waroon nañoo am feneen fu ñuy manque ndox mi pour yóbbu ci seen yitte ak seen dimbal ndimbalu sëriñ bi ñu jox ñu fële kër kàddu muy kàmb gu mag mag boo xam ne bii li mu liitaru ndox yu bari mën na faa dem loolu nag moom la ñu jëlee benn ay tuyau yu jógee Ngélémou di fa dem benn tuyau bi tuyau 400 ñeenti téeméer ci yaatuwaay danañ fa def beneen boo xam ne bii dana ful boobu ñaar mu nekk juróom-ñetti téeméer ci yaatuwaay pour yóbbu ndox mi loolu ONAS mi ciy liggéey. direction prévention gestion inondation mi ngi ciy liggéey brigade nationale sapeur pompier ñoom tamit ñu ngi ciy liggéey yokk ci tamit fële ci maire bi comme ni ko maire waxe defoon nañ fa benn euh, pompe boo xam ne bii lu mat million ak genn wàllu liitaru ndox mën na ko manque par waxtu biñ ko fa defee gis nañ ne amoon a njeexital bu mu am ndax ndox mi fa daan taa ñetti balaa mu fay jógee ni ko maire waxee ci benn waxtu ñaari waxtu ndox ma daan na fa jóge waaye ñun ñëpp teg nañu suñu bët bi nga xamee ne yàq nañ ko looloo tax tey bi ma ñëwee ñu lancé fa benn opération boo ñaar fukki camion yuy pompé lañ fa yóbbu waaye camion yooyu lim bi nu mu mënoon toll tamit mënula yem ak pompe bi fa defoon di def mille cinq cent mètres euh, ak juróomi ak genn wàllu euh, euh, litre par li nga xam ne daal moom laa mën a wax pour gàttal mooy doomu aadama mënu def dara loo xam ne lii dana matal yépp waaye li muy matal mooy yéeneem mooy yitteem mooy pas-pasam mooy taxaw yéene bi mi ngi fi pas-pas bi mi ngi fi def nañ ci yitte te service yépp ñu ngi ci liggéey bu guddeeg bëccëg tuyau boobu nga xam ne moom la ONAS def muy jóge pof di di dem ba kër kàddu muy ñetti kilomètre tuyau yi gën a cher ak yi gën a dëgër lañ fa def équipe bu ONAS bi ñu koy liggéey fukki fan la guddi ak bëccëg dañ ko doon liggéey loolu nag yitte ak pas-pas moo koy moo koy waral kon boog sëriñ bi daal loolu moom moo doon euh, saytu bi nga xam ne def nañ ko fi ak xayma bi nga xam ne def nañ ko ci liggéey bi di wax rek ne ni ma ko waxee bi may bi ñu ñëw tey jii taw bi moom moo ñu teeru mm. ay nee mi leen ministre bu yore mbirum ndox moom su ko taw teeroo wax dëgg yàlla ñëpp mën nañ koo comprendre loolu te bi ñu gisee prévision taw yi tamit fekk màggal gi maa ngi wax sànq gouverneur ko li mu mooy suñ ne suba lay màggal xëy na taw mën naa am ci bésu màggal gi tamit xëy taw mën naa am xëj na sax ci li nga xam ne gis nañ ko nag ci parce que yenn saa yi météo am na ñoo xam ne ñii fekk ay bés wala fukki fan ak juróom sax dañuy def euh, xayma bi soo moytul dimanche bi di ñëw rek la taw te mën naa am yeneen bés yëpp dana taw donc léegi daal loolu li koy taxa saafara nag mooy équipe yëpp taxaw di liggéey parce que ndox moom mu wàcc ci suuf kenn mënu koo euh, kenn mënu koo dékku waaye su ñëwee jumtukaay yi nga xam ne teg nañ ko ñu mën cee liggéey bu baax a baax ñu ngi ñaan ñu wax ak njaboot gi yëpp euh, que euh, ginnaaw bi ñu rafetloo yenn association yi ay xale ak ñeneen liggéey bi ñuy liggéey ci ci mbirum inondation yi ñu ngi dénk ñëpp rek alal ji nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk muy tuyaux yooyu muy liñ ñu fi def pour manque ndox mi kenn bañ ko yàq et puis ku gis ku koy yàq tamit nga wax ko service yi pour ñu mën koo tere mën koo aay ndaxte loolu nga xam ne def nañ ko diggante mairie ak Shell am na lu bare bare bare loo xam yàq na ko te am nañu ay information tamit que ne ci mbirum ndox mi am na ñoo xam ne ñi xëj na jóg nañu pour ci bésu màggal gi ñuy tëj ay robine mag yi nekk ci yoon yi moom la ñuy wax van bu nekk mu teg fa policier wala gendarme mu koy garde waaye wi moom mën nañoo di euh, saytu loolu di ko xool képp koo xam ne kii jóg nga pour yàq dara ci nga xam ne ni koy liggéey ñu ñëpp ñu bokk ko ñu mën ko wax fi ñu ko mën a waxe sëriñ bi loolu moom moo doon solo ñëw bi ñu fi ñëwoon tey jii di xayma di saytu tamit di ci profito tamit di rafetlu sa taxawaay ndaxte ci ñi ñuy yombal liggéey bi ci nga bokk ci sa xalaat ci sa farlu ak soññ bi nga xam ne yaa ngi koy soññ service yi bés bu jot looloo tax président ne nañu ñëw ñi nga xam ne ñoo yore comité d'organisation bi nga jiite ko ñu defal la situation bi fi mu toll ginnaaw bi nga xamee ne dem nañu ci sëriñ bi tamit jël ay tegtalam ak ay ay tegtalam ak li nga xam ne moom la ñuy sant pour ñu def ko ci bés bi ma ànd ci ak sama naataangoo ministre Issakha Diop nga xam ne moom tamit biñ ko joxee pàcc biñ ko jox ci liggéey bi ba léegi lu dul benn lu dul ñaar ñoo na ko fii ci Touba di ko saytu liggéey bi gouverneur ak préfet ak service yëpp muy directeur général ONAS Mamour Diallo muy directeur général OFOR Mag Ndiaye muy directeur assainissement Omar Sène di directeur prévention gestion inondation euh, Madické Cissé ak aussi guleen ci ministère bi yore ndox mi ñu am a soxna boo xam ne bii moom moo jiite directeur direction hydraulique muy Ndeye Abibatou Lo mii toog nekk ingénieur hydraulique loolu tamit euh, mu nekk loo xam ne lii ñu koy rafetlu ci weer yi passé la ko président dénk loolu euh, ànd nañu ak ñëpp daal di leen di gërëm daal di sant euh, di wax ne wax dëgg yàlla ñi ngi rafet bu baax teru bi ngeen ñu teru maa ngi lay gërëm ci loolu dina ko sant ci turu sama collaborateurs yëpp ci profité tamit kontaan bi fi trouvé bi fi fekkee sama ma wotale sama xarit sëriñ Abdou Khoudoss Mbacké di Daaru sëriñ sëriñ Bassirou sëriñ Bassirou Abdou Khoudoss bu Daaru Musi nga xam ne moom maa ngi jokkoo ak moom ñoom tamit dañuy taxaw bu baax ci liggéey bi ci mbirum ndox mi ñun ñaar di ci bare bare jërëjëf maa ngi nuyu mbooloo mi teew ci jataay bi di nuyu ministre ak kenn ku ci nekk ba mu yore ci liggéey bi di leen nuyoo itam ci turu sëriñ bi Cheikh Bachir moom fa nekkul xaar ñu la tudd moo jiite liggéeyu bàccaay yu màggalu Tuuba bi ci ndigal ñu sëriñ bi sëriñ Moustapha nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Khadim te ñu ñaan yàlla suñu borom bu may ko kattan ak wér ñu dëgëral taxaw ci liggéey sëriñ bi di ko ñaanal moom mi itam liggéey bi nga xam moom la ko yàlla teg ci ay boppam mu di ci gën a am ay ndam muy liggéey boo xam ne ci Mouhamadou Lamine Bara Moussa Fadal ci lu ko tàmbali woon di ko ànd ak moom te ñu ñaan yàlla mu gën a yàgg yàlla mi nga xam ne def na ko te coobareem la ko def moom lañ koy ñaan mu gën a yàgg ministre bi nag dégg na ko sëriñ bi dégg na ko waa comité bi dégg nañu ko ñi nga xam ne itam ñooy maj suura bi dégg nañu ko te mooy ñi ànd ak sëriñ bi ci liggéey loolu nag li ñuy tekki rek mooy kenn ku nekk lépp loo nekk ku ñëw ànd ci ak yow nu mu ca ma ne mu defee noonu su fekkee na yow maanaam ak ñi tey bu mu ci yow loola dana la ko ndax ak jàmboom tàmbali la am waaye àgg na suñu borom moo ko moo ko yore li ngeen di wax lépp nag boo dem ñu nga fii ak yi nga xam ne maire bi ak naaf te mooy li nga wax rek euh, fekk na am na a am solo yàlla bu mën a àggale nag yàlla ba àggale sëriñ bi nga xam mu sumb nga xam ne mooy ñi ko gënoon a jege li muy wax ak ñoom bokk na ca lam leen wax lu mel ne lii ma la wax moo lu mu wax borom boobu defal ko te moom lu mu wax rek moom bëgg na man naa loolu te xam naa ne am naa ñu ma ci ci loolu ci gëm ko kon nag seen ma seen xel daal ci wàllu woowu yéen ñi nga xam ne yéen a koy taxawee yow mu nekk ci bopp bi tey bu loolu lépp jàllee itam nag fekk na ma xam ci yow loo xam ne ak ñenn ci ñoo xam ne ñoom nga àndal liggéey bi loo xam ne pëstéef ak naa seen seen taxawaay moom mu ko kon bi lii nga xam ne dégg nañ moom mi nga xam ne moom a daje rek la ñuy te ngërëm moom bu ñu ko amee duutuñu ñàkk dara mu defal ko ñi nga xam ne loolu mu teg ko ci ndimbalu suñu borom mi nga xam ne képp ku mu dimbali duutoo soxla ndimbalu keneen suñu borom defal ko noonu loolu daal mooy li nga xam ne war nañ leen ko jot bi ministre bi sant la ci gërëm la ci taxawaay yi nga xam ne def ngeen ko yaat ñi nga àndal ñëpp ba ak si fii ci kanam sëriñ bi ñooñu ñun ñëpp di sant ñëpp di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di teg nuyoo bi ci loxo bi Serigne Mbaye yor ministre bi yor wàllu ndox mi ak assainissement di teg nuyoo bi ci loxoom mu jottali ko mboolem ñi ma àndal ñëpp te nekk ci agronome te buñ ci tuddee ministre Issakha Diop tudd ci directeur général ONAS Mamour Diallo tudd ci directeur général OFOR tudd ci yeneen directeurs yi nga xam ne tuddoo leen tudd ci gouverneur de la région de Diourbel tudd ci préfet bu Mbacké ak sous-préfet ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci waajtaayu magal ñi nga xam ne ñoom ne dégg nañ kàddu yi bu baax a baax ci ni ngeen ko jotulee ñu di ko rafetlu bu baax xam naa dina ci dégg sonn kon xam naa sëriñ bi xaar moo tax wax ji du mën a gudd te li des ci tamit yàggut waaye si nga daal kenn leeral na ma fi ngeen jaar lépp laata ngi agsi ci taxawaay yi nga xam ne def nañ ko ci dëkk bi ci wër barab yi nga xam ne mooy fi ami ak barab yi nga xam ne mooy forage si ji defar ci dëkk bi kon nag loolu dégg nañ ko bu baax jotaay bi nag tawféex ju rëy di ci am ndax ñi nga fi dajee ci jotaay bi dañ doon jël Sëriñ Tuubaa jàpp naa ne ku ne ci réew mi rek xam na ko mm. ku bokk ci yoon bi sax xam na ko mooy Sëriñ Bassirou Sëriñ Abdou Khoudoss ak maam Cheikh Ibrahima ak Cheikh Ibrahima bi maamam xam ngeen taxawaay bi mu amee ci liggéey bi moo taxal ma waxoon na ko na yëkkati gàtt bi jiital ak cant ma doon di leen sant ñëpp ci seen taxawaay ci jàppale bi ñuy jàppale ci liggéey bi jotaay bi jotaay bi tawfeex la sëriñ Siil Naar Jànn di sëriñ sëtu Jànn ñu di ko sant moom ci taxawaayam ndax lii mu def it mënuñ ko waaye lépp ànd ak ñu ci liggéey rek tax ñu def sëriñ Cheikh Bintu Fall sëtu maam Fall kon sëriñ Sa Jànn sëtu Cheikh Abdou Fall ak ak sëtu Cheikh Ibrahima Fall di ñëw toog noonu la kon tawfeex bu rëy la ci moom dolli na ma it njortu rafet ci ne li ñuy def Sëriñ Tuubaa nangu na ko te li ñuy def itam bëgguñ ci dara lu may ngërëmu Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi leen santaat bu baax di leen ñoom ñaar ñi ko seen maam ñoom dañoo jaxasoo lool ndax kenn ndax liñ doon ci sëñ bi sëñ bi mas na ci njaareem jël mbalaan mbuumu mbuumu mbuumu weex am na ko lu ñuul jël mbuum mu weex ëmb ko lu ñuul ak mbuum mu ñuul ëmb ko lu weex jël mbuum mu ñuul mi mi ëmb lu weex mi ëmb lu mu weex mi ëmb lu ñuul jox ko Seex Ibra ne ko kii de daanaka bu fekk ba ma kenn xamagul bu ma kenn doon xam ma ne xam na moom jël mbuum mu weex mi ëmb lu ñuul daal koy jox jox Seex Isaa nekk moom mii itam de bi ma ñëpp xamee bu ma kenn doon xam ma ne xam ne moom waaye kenn mënu ma xam ko kon ñoom ñaar bi suñ Touba ñi bisee kon seen diggante daal lu xóot la kon ñu ngi sant bu baax a baax di di di di la dolleeg nuyoo Serigne Mbaye ci taxawaay ba yitte yi ngeen def ci liggéey bi mu agsi di leen jot li nuyoo Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne ci ndigalam lañ ci lañ ci kilif ci kilifteefam ak kàddoom ngeen wax ne taxawaay yi nga xam ne def ngeen ko ci liggéey bi yëg nañ sëriñ bi gis na ko te boo ko gisee rek mooy murid murid yëpp gis nañ ko ndax moom ak xamam ak lam cee jàpp rek mooy li ci am solo yëg nañ ne jéego yi ngeen ci def ndax bu dee ci ren jii ndax li nga wax rek yàlla defal na ci ëpp maa ngi yow ñoo ko ànd ndax man la sëriñ bi daal yónni ci njiitu réew président Macky Sall ci assainissement bi ndax booba séentu nañ ne màggal gi dana demee nii moo tax ñu ko doon gàttal ndax day mel ne kon bu amutoon nag kon dana gën a métti waaye yàlla def na ngeen def ci projet boobu yi nga xam ne ci ngeen nekk di ko def te àggagul muy ñaar fukki milliards ñett yi ak ndox mi ba ci ren ji dafaa ngeen ci jéego ndax juróomi forage def nañ ko ren ci màggal bi kon loolu bari na te daaw gesoon gasoon nañ ñeenti forage wala ñett bu kon loolu lépp di ay taxawaay yu yu rafet ndax boo xoolee ci wàllum assainissement ba mu fi toogee moom ba ba léegi li dem def ci biir dëkk bi mën na ñeent fukki milliards juróom bu dee ci forage it def na fi lu mat fukki forage juróom-ñett kon loolu ay jéego yu rëy kon nag sëriñ bi nag ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm ci loolu yi nga xam ne def na ko ci dëkku sëriñ Touba. Touba nag mooy dëkk boo xam ne kenn mënu koo natt ndax loo fi def rek wala loo xayma ba jàpp ne boo ko fi defee fii ak déwén dana am boo ci àggee boo ci defaatoon ñett tamit lu tax mu doy loolu mooy li indi jafe-jafe kon xam nañ ne def ngeen ci yitte def ngeen ci jéego def ngeen ci taxawaay waaye dëkk bi moo rëy noonu. Tuubaa ni muy màggee xel mënu ko xalaat ndax yi dëkk dañuy wax nangami pour cent dañuy màgg Tuubaa boo ko doon xayma yeneen dëkk yi daanaka ñett yoo looloo waral mu demee nii waaye nag kon dañuy ñaan rek jéego yi nga xam ne tàmbali nañ ko ci mu àgg ba yeneen yu rëy yu bare topp ci ndax maa ngi ci doon waxtaan rek euh, directeur bi keroog muy wax ci wàllum assainissement lii tax Touba mën a àgg fa mu jëm daanaka dana jege téeméeri milliard juróom kon loolu mooy tax dëkk bi ci wàllu assainissement te loolu bokk sa ndoxum naa ni kon dëkk bi moo rëy day mel ni nit ñi dañoo jiit développement bi lu bëree bëri booleeg bi nga xam ne am na ci dëkk bi daaw jotee ndigal nga def ci yitte jure ndax àggoon na foo xam ne demoon na ba tiital ñëpp waaye yëpp ba wàññi ko waaye nag dolliwaatee ñu jël ndax am na ci côté yoo xam ne ñoom ñuy génn kër yi mu yokk rek ndax nab li seen ñu daa wax naan daaw bi ñu ci jaaxle mu ne moom mooy teen buy ràcc rek li war a wax teen buy ràcc rek moom rek léegi benn saawa di di yàq di jàll leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan màgg bi ñu ak ak ca te mboolem yi nga xam ne xalaat ngeen ko yéene ko def ko ci lépp yàlla suñu borom sottal ko ba mu àgg ni ñu ko bëggee ngeen day ci ngërëmu sëriñ bi